wax ñu kañ la loolu di am te luy tegtale ne yaa ngi ñëw te àddina di tukki yéesu tontu leen ne moytu leen bu kenn nax ndaxte ñu bari ñu ñëw ci sama tuur ne maa di kirist te dinañu nax ñu bari dingeen dégg ay xare ak cooyu xare wattu leen bu leen ci tiit ndaxte loolu war naa am waaye booba mujj jamono ji jotagul xeet dina jóg xeex ak weneen xeet réew xeex ak meneen réew dina am ay xiif ak ay yëngu-yënguy suuf ci barab yu bari waaye loolu lépp mooy ndorteel metit yi mel ni jigéen juy matu bu boobaa des na leen jébbale metital leen rey leen te xeet yépp dinañu leen bañ ndax sama tur bu loolu amee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 ngala jigéen ñi ëmb ca bis yooyu ngala it ñi nàmpal ñaan leen nag seen gàddaay bu mu nekk jamonoy seddaayu lool yi walla bisu noflaay bi ndaxte booba dina am metit wu rëy wu musula am ba àdduna sosoo ak tey te dootul am mukk te bu ñu wàññiwul bés yooyu kenn du mucc waaye des na leen wàññi ndax ñi yàlla tànn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 kenn xamul kañ lay doon du malaaka yi ci kaw du sax man doom ji waaye baay bi rekk moo ko xam ni bési nooyen ya noonu lay mel bu doomi nit ki di ñëw ndaxte ca bés ya jiitu mbënn ma nit ñaa ngi doon lekk di naan góor yaa ngi doon takk jabar tey maye seeni doom ba bés ba nooyen dugge ca gaal ga xalaatuñu woon dara ba kere ndoxum mbënn ma di dikk